fag yëbbu moo doon kër Cheikh Ibra Fall fag yëbbu di saamandaay Cheikh Ibra Fall fag yëbbu dal dina cas yanamba romb ñëpp dëngan di wey dëngan di wey dëngan di wey dëngan di wey ba xëy na raw góor ñëpp waay fa Cheikh Ibra Fall ba woon pengam ma moo ko ne cas mooyee salaat mbayam jërë ngeen jëf julli noonu ko amee ci sëriñ Bada Fall bu nu demee ba sëtub Cheikh Ibrahima Fall di nu diite julli nun war na noo sant yàlla ca bam fi ñëweeg léegi nag yàlla danoo dimbali ci moom am nawet sax ñàkkatun ko lépp lu nu wut danañ ko am li nu dese daal mooy aw yoon akum dollim ndox akub courant noo ngi koy diis ci yàlla ak yonte bi bisub maamam bii mu taxawal yal nañ ci yàlla defal loolu sëriñ Bara Fall yàlla na sew foon gudd mboolem góor ñeeg jigéen ñi ñépp sant nañ la li wër gébb gépp nag boo ma limee damay juum waaye góor ak jigéen ñépp joxe nañ seenug sant ni bu yàlla dogalee nga dem santal nu sëriñ Bada jigéen ñépp sant nañ la góor ñépp sant nañ la sëriñ Bada Fall yàlla na sew fan gudd kenn ànd koog yow jërëjëf Fall Njaga xam ñëwoo yebal nga fi sa ndaw ay baay ñëw nañ fi ay mag ñëw nañ fi ay rakk ñëw nañ fi ay taalibe ñëw nañ fi waaye dañuy tànn ñenn ci ñooñu buñ tuddee seeni tur rek di leen yóbbaale mboolem kër ga moo xam doom ju fa nekk moo xam baay bu fa nekk moo xam waajur wu jigéen wu fa nekk moo xam taalibe bu fa nekk kon dañuy maase déglu kàddu yooyu rek ñu jottali mbooloo mi kilifa yi nga xam ni bàyyi nañ seen yitte li muy xat-xat yokk seen pastéef li muy xat-xat seen diggante ak sëriñ Aliou Fall mii moom sëriñ Cheikh Fall Mbawar ci bis bii nga xam ni da ko woote fii ci Gébbu Fall bokk kook waa Gébbu gépp ak tund wi bokkam yi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Ibra Fall kenn jiituwu leen ci bis bi ñëpp teew nañ fi boo xoolee lii ci sama ginnaaw ak li fi jóge ca bis yi bari lool ca daje loolu rekk ko ko waral waaye ñii fi teew day yóbbaale leen képp koo xam ne ñëwoon nga wala nga am yéene ñëw nii ngeen def nag faal mooy bokk yu booloo bokk yu booloo su kenn teewee day yóbbaale ñëpp waaye bu fekkee ni bi li fekk ñëw ñëpp ñëwuñu dara du sotti ay bokk lan waaye booloowu leen waaye loolu kon day mel ni booloo ngeen kon ñu tudd tur yi nga xam ni ñoo fi teew ci bis bii nga xam ni moom la sëñ Aliou Fall di defal Cheikh Ibrahima Fall bokkoo njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi kon bokk na ci kilifa yi fi njëkk a teew sëriñ Ousseynou Fall moom Cheikh Modou Moustapha Fall bokk na ci ñi fi teew sëriñ Fallilou Fall moom sëñ Aliou Fall Mbawar di rakk ci sëriñ Cheikh Mbawar Fall mi nga xam ni mooy waajur borom bis bi waaye kenn ci njaboot gi buñ ko tuddee day yóbbaale kër Serigne Cheikh Fall Mbawar gépp muy maam Ibrahima Fall buñ tuddee Serigne maam Cheikh Ibrahima Fall moomu ñu leen yóbbaale na mboolem njabootu Serigne seex Fall Mbawar gi la ko dale ca moom ba ki nga xam ni moom mujje feeñ ci kër sëñ Cheikh Fall Mbawar cay góor maam Ibra Fall yóbbaale na la waaye soxna maam Faati Fall mi nga xam ni mooy mag ci jigéen ñi buñ ko tuddee yóbbaale na mbooleem njabootu Serigne Cheikh Fall Mbawar gépp Serigne Aliou Fall nee gis na leen sëriñ seex Jee Fall mu sëriñ Assane Fall moom Cheikh Ibrahima Fall Kawsara teew na fi Serigne Abdou Rokhaya Fall moom Cheikh Mouhamadou Mortala Fall teew na fi di dolli sant ak ñaan Serigne Bada Fall moom seen Cheikh Mbawar moom sëñ Ali Fall Mbawar moom maam Cheikh Ibrahima Fall sunu borom dolli guddal am fonam dolli wér-gu-yaram ak kàttanam ba lépp lu mu yéene ci dëkk bi yéene ko njabootu maam Cheikh Fall gépp mu liggéey ko ba mu sotti te nu ànd koog moom liggéey bii nag dama wax bëkk démb fii ak bokki taalibe yi mu ni ma leen mur yi taxaw xay nga mel nu mu toll la ñu ma mat na juróom fukk ak juróom benn murit yi taxaw ma xalaat ci nag taxawaayu mag ñi maam Cheikh Rafal andi woon fii ñu daan ko liggéeyal maam Cheikh Rafal daa leen fi fek jataay ba nu am ñoom muy lu néew te mu bàyyi koo ci lu bari ñu wax ni maam Cheikh Rafal nee na leen fii ci dëkkam bii suuf gi nangu na kaw gi nangu na kon ko fi taxaw aw yoonu liggéeyal maam Seera Faal maam Seera Faal dana la ci gàttandu defal la ci lu kawe njot looloot bu ma ci àggee dama toog fi kanamuk sëriñ Cheikh Abdou Sakkour Faal moom maam Seera Faal ci kaw suuf mu ni maam Cheikh Fall de daana gàttandoo kon bu nekkee ci dëkkam bii sumb liggéey bu toll nii ci liggéey kër maam dëkk maamam bii yéene ko mboolem lu sant Fall kon dañ koy ñaan am falam gudd maam Cheikh Fall gàttandu ko ba mu sotti coleet ba mu am ko ni mu ko bëggee ak murit jenu ànd koog moom nañ ci njort bu wér nag ndax mag ñi damaa toog a bàyyi móor bi bokk ci jëwriñ yi nga xay daar yi fi maam Cheikh Fall andi woon ci la bokk mu dimal limal ñëm fi nekkan yi nga bàyyi Cheikh ña nga bàyyi Thierno Sall baay musaa Gueye baay Mor Ndiaye Dànq bàyyi Moussa Ñankool bàyyi Saliou Gakou ba bàyyi Saliou Ñaay Ngay ak bàyyi Cheikh Gadiaga bàyyi Moussa Diouf aha ak bàyyi Cheikh Awa Diop bàyyi Mbaye Diop bàyyi Moussa Gueye ñii ci daar yi la nekkoon doo liggéeyal maam Serap Fall maam Serap Fall fekk fii ñooñee nag fekk na noonu moom seenu jitaay fii ñu wax nu ni ni maam Serap Fall nee leen fii suuf gi nangu na kaw gi nangu na liggéey bi ñu ko fi daal liggéey maam Serap Fall daal fi fekk nag mboj mi ay firnde yu wéer la yoo xay lii luul yi wan nañu ci xamal nañu ci lu wér la ndax mboj mi fii ci dëkk bii la aman maam Serap teewe ko Baye Ablaye ngoom laa bokkal benn jitaay ma di ko ko laaj rakki Baye Dawuda ngoom mu ni ma mbojj moo meede lu am la bi nu xëtee sàq bi mbooloo mi wër ko ak dong yi ak jigéen yi asamaan si xiin jëw ñi dong yi de dañoo àgg fi maam Cheikh Fall fii ci këram gi ni ko ah, faal sàq mi day xen nañu ko dong yaa ngi ko wër asamaan si xiin na te fii nu xiin na lool bi ñu ko waxee maam Serap Fall mu génn xool ko delluwaat ci biir Baye Ablaye Ngom ni bi mu delluwaat ci biir ne xiin woowee def aw yoon ci suuf weextal aju jëm kaw nee na daal koy wëlbati ba nga xay liggéey boobee nanu ko bëggee woon liggéeyee nanu ko Baye Ablaye Ngom ni ma ñeena leen ah ci nga xay moom la ñu ba ma ko waxee liggéey ma sëñ Tuubaa bii ndax ma ni dañ may liggéeyloo ma jàll ca ka koy liggéeyloo loolu ma bàyyi Ibrahima Ngom wax nañu ko fii maam Seer Faal nax na ko kooke yore woon ndox mi te naa nañ ko wàcce fii ba ma ko waxee ndax ma ni dañ may liggéeyloo ma àgg ca ka koy liggéeyloo ni koy liggéey sëriñ Tuubaa bii du yàqu loolee fii ci dëkk bii la amee woon Baay Ceerno Sall def na ci ay firnde yu wér ci mujj saat yooyee daje nañu fii ci daar ji la nekkan jamono yooyee ñuy séddale ay matériel di séddale ay jiw ba nga xamante ne mag la te ab sëtam nefi turam war a génne matériel ba nga xamante ni bii séddale nañu te amut ba ñu ko ne sëw tur di génne na waaye matériel bi daa manqué daf leen ni lu tax ñuy wut matériel lu tax ñuy wutu jiwu lu tax ñuy siitum ceebu lu tax ñu bëgg a liggéey am ndox bu ngeen ma joxul sama cër bii du ngeen amam ndox bàyyi ceer na Fall fii ci dëkk bii da ko waxee te loolu fi suñ kanam la loolee te mboolem mag ñi mu ko doon waxal kenn ku ne laq na ngërëm am Seera Fall ba mu waxee loolee kenn ku ci ne ba ñu amee diir kenn ku ci ne jot sama teer wut saw jiwu ruuj sab tool seenum ceewu gis ñu menn ndox maa Ceerno Sàll moomee loolee mu wax ñii mu ko doon wax ñu laq ngërëma maam Cheikh Fall la waaye cëram boobee maam Cheikh Fall suñu bam da ko caa fekk ñu dajale la war a am fexewaat ba wutal ko matériel jébal ko ko ñu soog a mën am ndox loolu bàyyi Ceerno Fall Sàll def na ko fii kon bu nee kaw gi nangu na suuf gi nangu na ñi ko doon liggéeyee du ma ta wax ah kon lu fi waay sàkku rek da nga ko am fii lu fi waay sàkku rek da nga ko am waaw noo ngi leen di sant baax di leen ñaan bu baax a baax rek waaw su borom guddal ak fanu suñ Bada Fall guddal góor fanu mboole murit yi fi nekk murit yii fi taxaw nag bi ma ko xaymaloo dañ ma ne juróom fukk la ak juróom benn dinaa tàmbali sama ñaari téeméer nag bëgg juróom fukki ma te juróom benn yoo yi kenn ku ci ne da ciy def mes taxawaale ko jëmmale ko sëñ Cheikh sëñ Cheikh sëñ Bada Fall ci liggéey bi muy liggéeyal rafetlu kàddu yi jàll yëpp di am tuuti lu sëriñ bi leerlu muy ñoo xam ne dañoo nekkoon ci liggéey bi te muy li nga xam ne moo ci gënoon a yitteel sëriñ bi muy lu mel ni njàngum alxuraan mi te sëriñ Taoben jiite woon ko ak sëriñ Daam Njaay ak sëriñ Abdou Fall yàlla dogal ñu jàngoon fii ñeen fukki kaamir ak ñaar ñoom waa dëkk bi ñoo jàngoon ñeen fukki kaamir yi am na beneen murit bu ma déy ni ma jàng na ñaari kaamil ñu def ko addee Cheikh Ibrahima Fall ak mboolam mag ñi fi yabaloon te ñu nekk barsàq ak ñan fa fekk ak ñan la fay fekk jàngoon nañ feet li mu xasida trois mille deux cent cinquante xasida yoo xam ne jàng nañ ko fi loolu kon sëriñ bi daa waxoon ni nañ ko leeral kàddu yi nag du gudd ndax li ñu waxoon a wax ñu jiitu ñëpp wax nañ ko li wàllu baatu loolu ngay wax baatu ma li ci ëpp Moustapha Moustapha Sylla duggoon na ci mooy li ngeen doo def léegi joxe sa alal te yoon wi ñaq ak ñuqi mooy yoon wi te kon wone ngeen ni yéen a ngi ñaq ndax baas bii li ko doon def loolu xeetu ñaq la waaye nag dajaleem xaalis xeetu ñuqi la kon sëriñ bi sant na baax mi gërëm bu baax a baax dëkk bi nag day mel ni buñ fi waxtaan te Cheikh tax ki woote bis bi di sëriñ Aliou mu sëriñ Cheikh Fall Mbawor njabootu sëriñ Aliou Fall Mbawor gépp njabootu sëriñ Cheikh Fall Mbawor gépp ñëw toog dana leeral tuuti ci sababu dëkk bi dëkk bi waxoon naa ko keroog bi ñuy def émission ndigal ci la ko Cheikh Ibrahima Fall amee woon waaye ndigal la fi indee woon mag ñi kon nag ñun ndaw ñii fi des di taalibe yi ndax nit du soññi kilifaam waaye ñun ndaw ñi di taalibe nañuy fàttaliku pas-pas yi mag ñi nga xam ni moo taxoon Cheikh am dëkk bi moo taxoon mu indi fi mag ñi lii ngeen dégg ñu koy nettali ci xaw baax yu mag ñi doon def njàngum alxuraan taxul woon ñu man ko njàngum xasida mag taxul woon ñu man ko seen pas-pas seen diggante ak Cheikh Ibrahima Fall moo taxoon ñu man ko tey dinaa ci nettali waxoon naa ko keroog man am naa sama maam joon daax moom moo du Matar Lo dëkkoon tin lay kan jàngoon na man alxuraan man xës da mokkal ko doo a ji Cheikh Ibra Fall waaye bi mu àndee ak Cheikh Ibra Fall ñu taqoo ab diir ca sin lay kan da daa taal ab sébbu taxaw ci digg sébbu bi di wax ne Fall du lakk fii duma lakk fee kon loola ginnaaw mënoon na alxuraan te mënut loolu te bi mu jonjoog Cheikh Ibra Fall ab diir day taalub sébbu taxaw ca kaw di wax ne Fall du lakk fii du ma lakk kon nañ xoolaat loolu lan moo koy tax a man loolu mooy taqoog waa ju baax mais jëfal ko nag te wàññi wax ji wax ji baax na mais jëfa ko man nañuy jëf fii nag fu ñuy waxee jëf gébb a ci kaw ndax lépp lépp gébb ndigal la mag ñi xaw baax yu ñu doon def yëpp nangoo liggéeyal sëriñ bi te néewi wax lañ ko doon defee kon ñu ndaw ñi nañ futtiku ci liggéeyal sëriñ bi lu ñu am nañu koy jox sëriñ bi bàyyee suñ bopp ak sëriñ bi waaye nag di xalaatal sëñ bi ak sëñ bi lii la woon wax sëñ bi lii la woon a def loolu moom feek ñu koy def nañu xam ni lañu fi indi woon ñu ngi koy bëgg a fàtte te tund wii moom muy commune Touba Fall ak ko fi man di ne na xam ne alal Cheikh Fall nga ndax tund wi Cheikh Fall commune bi commune Cheikh Fall la suuf si suufu Cheikh Fall ku fi dëkkit da ngaa nekk ci biir suufu Cheikh Fall kon nag nañu xam li ñu fi andi woon di ko bàyyi xel bu baax a baax mu di ak taalibe lu ñu fi wut lu ak taalibe nañu ndax lu ñu dañ ko dul mën a am ndax Cheikh Fall moo waxoon mag ñi ni leen maa ngi leen yóbbu foo xamante ni jii yóbboo moo leen fa wutum alal yóbboo moo leen fa commerce gu nungu yóbboo moo leen fa mbay mu nungu dama leen fa yóbbu woon ngir bu sëriñ bi woo sëñ ba wootee ngeen wuy ji bu laajee ngeen joxe loole nag ku ko fi xee ba wut fi leneen doo ko am dangay ngay nañu sax ci taalibe kon maa ngi jéglu baax di sant nag sëriñ bi ndax waa dëkk bee ko sant lu muy sëriñ Bada Fall waaye nag bu ñu ko santee sant na njabootu Cheikh Fall gépp ndax menn moom képp su woote woon nekk fi ak ñun waa dëkk bii nañu xam ni biis bi du am xorom ndax ñun ay taalibe lañ nit nag li gën a baax boo wootee say bokk ñëw ba noppi nga ànd ak say taalibe waaye beddi ko ànd ak say taalibe te àndoog say bokk woote ba des na sëriñ bi nag ànd naa ki bokkam ànd ak taalibe yi kon suñ xel dal na suñ yaakaar dolli ko na ñu ngi ñaan ci barkeb Cheikh Fall yéen fi teew ku sant Mbàkke ku sant ak nu waaye man sant yàlla mi ma nga xam moo mën a faji aajo yàlla seen faj seen aajo ci barkeb sëriñ Tuubaa Cheikh Fall te bii sëriñ bi yàgg ko woote ñu yàgg ko wuy te am luñ ciy def nag sëriñ bi mën na ko loolu sëriñ bi taalibe yi ñu ngi koy ñaan saa boo wootee yàlla nañ am doole poos am doole doole yaram amum xel muñ ci mën a dikke ndax am xel ak tuuti alal ak tuuti wéewu yaram dana tax boo wootee ñuy mën di ñëw sëriñ bi taalibe yi ñu ngi sàkku loolu ci yéen ñi nga xam ne yéen sant ñun nag seen i jaam lañ yoo xam ne dañoo wax su ngeen wootee ñuuy ji su ngeen laajee ñu joxe waaye wootul di leen xalaatal woowu ñoo toogit fi yéen di wax ñu ngi jéglu bu baax a baax kàdd yu njëkkati mbokki taalibe yi fi teew yëpp noo ngi jiite ci suñuy kàddu du sant sunu borom di julli ci yonentam bu tedd ba di ñaanal sunu yaakaar Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool te wér di ko sàkkul ñaan mboolem ñi fi teew ñëpp ñu naa ñaanal ko ba lépp lu mu naal ngir liggéeyal ko sëñ Touba yàlla na ko yeggale ba sumb leneen te ñu ànd ko moom ñu ngi ko ñaanal baax Serigne Cheikh jëmm mu yàlla dogal mu wutu fi maam Cheikh Ibrahima fal di ko ñaanal baax Serigne Cheikh Fall ibnu Seydina Aliou Fall Mboor di ñaan suñu borom dolli ko fa yàggal bu baax te wéral ko noo ngi ziar bu baax a baax Serigne Bada fal mii ñu fekk si tey jébb di jël nuyoo yi ak ziar yëpp teg ko ci loxoom bi mu tegal ñu ko ci loxol mbooleem kilifa yi fi teew eh, tàmbale ko ci soxna Njaxat Mbàkke moom Cheikh Abdoulahat mi nga xam ne ci fi la waaye di bu baax a baax itam sëriñ maam Cheikh Zikrullah moom Cheikh Serif Assane mii ci jotaay bi waaye sëriñ maam Cheikh moom sëriñ Cheikh Fall Mbor bu seen kilifa suñ jëlee nuyoo yi teg ko ci seen loxo teg nañ ko ci toxal mbooleem njabootu Cheikh Ibra Fall gi fi teew. di ziar bu baax waa daayira Jazbul Murid ci njiital sëñ Modou Fall moom sëñam Amdi Yaasin ñoom teew nañ fi ak mbooleem soxna yi. di bu baax a baax itam waa kuréelu baax maam muy soxna yi nga xam ne teew nañ fi di njabootu Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina di ziar bu baax magi dekk bi yep nak buñ jëlé nuyoo yi tek ko ci loxol suñu bàyyi bàyyi Modou Soda Fall mi tok mom señ Mor Ngone Fall mom mam Modou Fatma Fall dafa nañ tek nañ ko ci loxol mbolam ñi fi tek ñi fi tek nek ñep nekkal fi ñi nga am seeni bàyyi la fi Cheikh Ibra Fall bàyyi won ndax euh, ñi mag ci dekk bi la nak dañ koy beral cant ak ngeureum ak ñaan dafay jàmbaar yoo xamante ni bii Cheikh Ibra képp a ko ñor te saa su ne mi ngi koy wane ci jotaay boo xam ne rek teewe na ko ci njabootu Cheikh Ibra Fall gi yëpp di ay bokkam dafa wax lu am solo nag mooy sëñ ba Bada bi mu wootee bis bi ay bokkam wuy si nañ ko loola nag Cheikh Ibra maamam ba mu wootee ay bokkam wuy woon nañ ko moo tax ku woote te bokk ci Cheikh Ibra Fall wooteel Cheikh Ibra Fall rek faw say bokk wuy la te loolu feeñ na tey ci bis bi ndax njabootu Cheikh Ibra képp a fi teew ni nga ko waxee léegi rek jur ba fi ak gërëm ba fi rek a fi ne te sëñ Modou Moustapha Fall mas naa wax ne Cheikh Ibra waxoon na ne kiñ jur ba fi war naa fexe ba déggoo kiñ gërëm ba fi kiñ gërëm ba fi war naa fexe ba dégg kuñ jur ba kon loolu feeñ na ci jotaay bii su ma waxee loolu nag man na ma cité kenn maanaam teg sama baaraam ci sunu bàyyi Modou Soda Fall mi toog bokk ci ñi mag ci dëkk bi ndax bu ma nee Cheikh Ibra ay bokkam wuy si nañ ko mooy sëñ Mor Ngone Fall mooy maamam sëñ moor ngoone maam Moudou Fatma ko jur te maam Moudou Fatma démb no mi ko meññ ak ma doon roqee Fall li wajur Cheikh Ibra Fall mu tawlo Ibra Fall xëriku ma jox Cheikh Ibra teg ci Cheikh Moudou Fatma tudde ko Cheikh Ibra jox ko ko bàyyam moom bim bi dem jot a dem ca daara yi Cheikh Ibra ja waaye naqarlu na ko nag bu ko metti ndax lu tax ñu joxe ay magam te ñoom joxewuñ ko muy bàyyi Mor Ngone waaye damay leeral kérok bam koy metti lu ba ñew fi Cheikh Ibra mam Cheikh daf ko ne dama yoral ma sa bàyyi boba mam mudu Fatma mi magi Cheikh Ibra Fall di mamam jur bayam mom la nekkal mu tey ko pour mu nekk ak mom tax mu jox ñepp Cheikh Ibra tey ko ci kër gi ko li tax rak magam yépp dem dara te mu demu dara Cheikh Ibra bi ñewé ci mom daf ko ne dama yoral ma sa bàyyi nako buru won ak li xanaa lii defla, def la Cheikh Ibra wax de waye suru won ak li yalla def damay xey ci tolu mudu Fatma sama kon sa tolu mooy moo moo moo jur Mor Ngone Fall Baye Mor Ngone mooy bàyyam léegi nag li ma waa kay jaajëf li tax ma jubloo wax loolu mooy dama eh, fii ci gébbu sëñ Bada wax di Baye Modou Soda mag ñi fi nekkoon ba ci Baye am di ñang ñi ngi ñaan yàlla yokk ay leeram Baye Sëriñ ñaan bi ak Mbay Fall ak ñi jota ñi fi nekk ak ña nga xam yàlla dogal jiitu ji nañ ñoom ñëpp kenn ku ne waxtu wi sustu wala lu ko kii ñëw naa ñu ne ma Cheikh Ibrahima sunu bàyyi nee na woon na Cheikh Ibra nee na la leen fi bàyyi ba tey mooy lu fi Cheikh Ibra defoon la defal defoon defoon ko ci seen i jur ngir ñu dëe fii ndax bi leen Cheikh Ibra di yabal ñu ñëw fii mag ñi wax nañ ko njaareem bi maam Cheikh dellusiwaatee njaareem 1915 wala 16 ci la dekkalaat dëkk bi waaye dëkk bi sanc bi yàgg na ndax bari na ci dëkk yoo xam ne Cheikh Ibra sañco jàpplu woon na ko Touba Fall gii sax wax nañ ne gannaaw Cheikh Ibra ko sanc waaye Cheikh Ibra jàpplu na dëkk bi Wow, fii Cheikh Ibra jàppul woon na ko gannaaw si bi nag lañ ko yeesalaat yabal fi bàyyi ma kumba ñoom re mu nekkoon jëwriñ ja dégg nga sëñ maam Cheikh wax nañu ko léegi li gën a doy kéemtaan mooy Cheikh Ibra neewoon na am murid du fa dëkk ba ne am murid du fa dëkk nag jaaxaloon na mag ñi ndax bàyyi ma fal korog daf ko ne ñun de fal moonte bëgg dooni murid a tax ñu bàyyi sunu ndey bàyyi sunu bay topp la Cheikh Ibra na ko ma déggoo dama ne gébb ku fa dëkk weesu nga murid kon waaw moo tax man wax naa ko sëñ Aline Badara Ndim wax naa ko ñu bëri nee naa sëñ Bada lii muy def Gébbu man dama ci am yëg-yëg te bon lancim la Aline Thioune mi moom làmp Fall TV moo ma ne danaa wut biis fii ñun waa Lamp Fall gépp ñu dugg ci journaliste ak ñëpp ñu def sorti Gébbu Fall te da koo seetaan dafa seetaan rek reportage bi ñu fi defoon am na ku nekk ca Belgique ñu ko wax Bruxelles mu soxna Adama Seck dana ma seetaan lii sut est jàll la télé bi dana jàll ci internet këram laa korité ca Belgique sëñ Saliou Mbacke xasida mu sëñ Fallou son yi bu am na où waxtaan woo gis ma di ko defak moom sol lu bula këram kër soxna Adama Seck la ca Belgique moom jël na avion wàcc ñëw fii gébb barki sëñ Touba ma ngoog gis nga loola moo bokk na ci li tax ñu xamee ba mu dalal ma këram ca Belgique fa laa korité maag sëñ Aline Badara Ndiaye pour wax ne gébb nit ñi dañ am na ku ñuy wax Euh, bàyyi taala gay do taalibam sëñ Moustapha am sëñ Abdou Khadir la jëwrinam da ca Ndakaaru moom yéenam jëpp nee na mooy teg tànkam gébb démb ci guddi rek mu ngi may woo téléphone maanaam pour wax la ne la daara ji mag nit ñi dañ koo bëgg la tax ñu bëgg ko nag am na ñooñ mosuñu fee teg seen tànk waaye damay def émission sax ñu ne ma waxtaanal ci gébb te mosuñu ko mosuñoo ñëw gébb li leen ko bëgguloo nag Cheikh Ibra ndax maam seex li muy def ci nit ki du loolu da fay teg sa tànk rek mu door a ne fi yow Cheikh Ibra romb na foofu te dinaa wax li tax fii mag ñi fi Cheikh Ibra Fall tërbiya lu ne woon na leen maa ngi koy nettali kenn ci ñi fi toog nee naa leen fii laa gis mag ñoo xam ne Cheikh Ibra tërbiya leen ba àgg ak ñoom ci sax tere leen soxna maa la wax loolu Baye Thierno Sall ko maa ngi waxtaan woo xam ne nee na Cheikh Ibra moo nañu woon dem leen wuti yàlla doom cer na Sàll ma ne Faal mu ne ma lu fi nit di taxawal ci àddina caay-caay mën na ko ba mu des yàlla bàyyi na teg ca ne koroog laa bàyyi nangam dencut kër denc samput kër Mor Ndiaye tomb del boobu fi doom Mor Ndiaye dànq boobu ñu fi doom te fii la leen Cheikh defare fii mag ñi lu ne Cheikh Ibra woon na leen ko ñi fi seeni i bàyyi ñi fi Cheikh Ibra defar seeni i bàyyi ngi ni toog lu ne Cheikh Ibra woon na leen ko gémm mag ñi damaa jàpp ne Cheikh Ibra ci boppam moo liggéey bii moo tax noo ngi ñaan Serigne seex Fall Mboor mu yàgg fi loolu te wér yàlla na fi yàgg loolu te wér yàggul dara rek damaa toog sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fallu nuy waxtaan ci moom ku ko bëgg la wax naa ko sëñ bi sax nee na ma moom guddi du ma tëdd mukk ci lal te dégluwuma ko ndax daf may soññ sëñ Abdou Karim mu sëñ Fallu tax gars yi am nañu fi toog xam nañ ni ma demee ak moom ni ñu demee te Cheikh Ibra tax moo ma ne dereti Cheikh Ibra daw sama yaram moo ma ko wax waaw moo ma ne ku la na murid saadix laa sëñ Abdou Karim nee na ma murid saadix bu dee lu wér danga ko fekk mu dund maam Cheikh Ibrahima Fall waaye saa bu la nee saadix la nga làmb ko dajoog ci moom Cheikh Fall dañ ko ko jiij waaye du dëkk sëñ Abdou Karim mu sëñ Fall moo mën a saadix kuñ koy wooyee da nga dund Cheikh Fall moo tax fii mag ñi lu ne woon na leen xanaa xamu leen ne loora gii bay am ni moo ma wax fii guddi na ma bant ab bant lañ fàq ñëw samp ko jaayante xoolal seen jaayante ga kon la nga xamal ne mag ñi lañ doon am nañ ko mooy bu fekkee suñu liggéey bii bant bu wow kong ñu samp ko ne bu fekkee ne ñun góor yàlla yu toll ne nun dal bu fekkee suñu liggéey bii seerafal nangu na ko na bant bi jeb bi buñ ko nangul gum jeb mu mujj doon ak garabug loora fii ci penc ni ñu romb aw nag wu ëmb keene góor la ëmb keene jigéen la nag woo wasin seex ñaari nag ñu ñëw seera fal na bàyyi leen werante doom sàmm boobu may ngeen ko yëg wenn nag képp la waroon na fii lañ fii la dama lay wax ne la ñi fi Seex Ibra indi woon man de ñeenaa ñi fi baax xam naa ne Seex Ibra def na ci ñoom lu wér maa la wax lu wér la Seex Ibra def ci ñoom gébb gi ñu fi laxasaay ba am ngërëm Seex Ibra def na ci ñoom lu wér ñu Baye Thierno ñoom ñi ñu tudde Baye Mor Ndiaye tombu del dañoo gën a siiw rek waaye am na fi ñooñ fii Cheikh Ibra woon na leen fu lu ne lu ne daj nañ ko fi lu ne am nañ ko fi ay nitu yàlla yu mag a fi dëkkoon fii ci gémm Mor Ndiaye tomb del nag ak Thierno Sall ñoom dañoo fees ba mu mujjoon leen yor daanaka boo dajee woon ak ñoom ci mbedd sax xam na ñi ñi ngay dara mhm. am na ci ñooñ nag yàlla da leen a mane ñuy tasaare liñ yor bu leen neexee weer ko ci marché ku mel ne bàyyi Cheikh yooyu nga xam ne seen poste lañ ko daan def ñoom siiw yàqu ci lu ñor dara am na ci ñooñ nag liñ yor dañ leen ko nëbbuloo loolu rek mooy mooy mooy différence bi bàyyi Mor Ndiaye tombu del fii teen bii dugg na ci fii la ko maam Cheikh Ibra Fall defe garaatu tombu del te fi ne bëri na fi ñu toog ci jotaay bi dañuy dégg tomb te xamuñu lu mu waral question yu bëri la laaj nañ ma ko tombu del mooy del 4 la nga tomb ko muy 700 bi mu duggee ci teen bi ba génn la ko Cheikh Ibra ne ko tomb naa sag del bi ngay xëy ci man sa maqama ci ñeent la yoon ci 4 bi nga duggee ci teen ba génn tombana sa del mooy xëyee ñeent gonto juróom-ñaar fi la ko Cheikh Rafal defale Mor Ndiaye tomb del xoolal nag diggante 4 ak 700 sëñ jili diggante 4 ak 700 700 waaw diggante ñeent ak juróom-ñaar téeméer différence bi nga si di ñeent gontu Cheikh Rafal yóbbu la ci maqaamam juróom-ñaar téeméer fi la ko bay mo bàyyi Mor Ndiaye tomb del amee te bay Mor bay Mali Ndiaye moo ko Mor wu fi dom bàyyi Malick la jël def ko doomam bàyyee ko ay bagaasam bàyyee ko këram Baye Malick moom gars yi xam nañ ni ma dem ak moom amul benn bis bu ñu jokkoo ma ak moom xam naa ci moom lu bari bàyyi Malick moo ma wax ci làmmiñam na ma bàyyi Mor moo ma ne takkal ma néegum ñax fee ndax rus naa wuji Seera Faal di bàyyi ko ci néegum tabax dama leen di wax li Seera Faal defal mag ñi fii ci gébb ba tax nu xam ne dëkk bii noonu war nañoo sol daal li weñ di dox ba mu xar ñëw fi Baye Mor tombu del bañ ko takkalee ab néegum ñax fii ci daaru marnaan ci këram gii mu dugg ca néeg ba bisub altine sëñ Malick Ndiaye moo ma ne man mii la woo ma ñëw mu ne ma Malick ma ne ko Mbàkke mu ne ma tay la lan ma ne ko altine mu ne ma suba ma ne ko talaata mu ne ma suba ñaata fan lay doon ci weer wi mën ne ko suba la weer wi xëy mu ne ma Malick ma ne Mbàkke sëñ Malick sëñ Muntaxaay sëriñam nee na Baye Mor moo ma ne su ma doon yari jëm ma jenn ji sëñ Basiru laa koy jox jox naa la sëñ Muntaxaa Baye Malick nee na ma ne ko tay la altine mën ne ma suba ma ne ko talaata munuma suba ñaata fan lay doon ci wër wi mané ko suba lewé bi xey xëy malik bis bobu ko rafet na bu suba ci takusan nag ma denc ci kanamu cheikh ibra billahi bu suba ci takusan nag ma denc ci kanamu cheikh ibra bay mor ñay tombu del jëm lu won do xamanteni bi fi la ko cheikh rafal défaré lim am lepp da fi la ko amee te danaa la wax mbir mu doy waar xasida yi ñuy durus moo ci man kuy taxaw ci kaw suuf moom képp moo daan toog ci jotaay jàng junniy maraaxib maa la wax loolu jàng na ko njote siyaan malaaka yi aj nañ ko juróom-ñaari mètre yoo xam bàyyi mor ne na suuf sëñ murtala nuyoo ci dëkk ba mu jox ko ko addiye sëñ falum sëñ murtala moom la def dara tey njote siyaan sëñ bàcc njaay ngi ni toog xam na li may wax bàyyi mor njaay tomb del sëriñ abdou sakkoor fall bàyyi mbéykan xandi moo ma ne yaay debbo Sarr bi ñu ko joxee Cheikh Ibra Fall Baay Mouridina ndax 1904 sëñ Jili Ba 1904 la Serigne Mbacke Fall Xari jóob ganee jamono ca ndànd Cheikh Ibra yónnee gànnaar sëñ Touba ne ko tudde ko Mamour Diarra maa la wax loolu Mbacke Xari Diop Mamour Diarra lañ ko dippee yar nako jangal nako la wuru la indi turu mbacke fallo sax xam naa ko waaye du fi xaj at momé la maam Cheikh bàyyi ko ndànd ñëw tuxu Thiès sanc Madina Fall fekk señ maam Mbayloo 1892 maam Cheikh yabal nako ko mu jitu ko li lay xamal ne Cheikh Ibra du nit moy xana xamone amna ci ñooñ bi ñuy jébbalu ci maam Cheikh Ibrahima Fall señ touba dama ko ci géej gi sëñ Mbayloo ca la bokk ak seigne Modou gay ñaay ñom ak seigne Modou Ndiaye ñaay ak Cheikh Atoumane Diop ñooñu ca mangi lañ bok ñooñu gànjoon lañ jébbaloo tasineer bi mam Cheikh ñewé Thiès yaay de bossar fek tek nañ ko ci loxol Cheikh ibrahim Fall mu yàgg fa amu tuut tank yalla dogal ci bopam Cheikh ibrahim Fall yonne fi serigne bi diko ko ak téré bay mbay ken xandi nee ma bañ ko joxe soxna sa mu tak ko yalla dogal bam amé tout tank muy góor Cheikh Ibra Cheikh Ibra Fall yónnee fi sëriñ bi ndax sëñ Touba ko daan jox tur ba gànnaar ba gànnaar Cheikh Ibra daan ko yónnee aw tur ba mu yónnee fi sëriñ bi sëriñ bi ne sëñ Touba ne nañ tekki téere ba tur waa nga ci bàyyi mbéykan xandi nee na ma ñu tekk ki ci Abdou Sakkoor maa la wax loolu de Sërif Assane Fall Baye Cheikh Ndiaye daa bàyyi nee na ba mu ganee jamono. Cheikh Ibra wax na tuddal mako nar bu buy jaay coggal tuddal ma ko naar jaay xorom kam ko tudde badar la ko te boy waxtane badar nak ak aras ak yoy ki mënta dem jam ñaaju gi nan boy dañuy tok ci télé bi wax wax di fo di lepp te Cheikh Ibra magam ni dem aras ak dem ci marché bi lañ yamalee te mam tiorno Sall mi ma doon nettali léegi amna kenn ci njabatu sëñ Mour Moussa Fall wax turu biñuy denc soxna Astou Gawane mu sëñ Touba ke ko netal neena ma fekk na jotay ba maag bay tiernu Sall ak kilifa gogu ñoo tok ci ben ben pays ni ci armée ñuy dëj son Astou Gawane guddi neena bay yor téré diko ko neena kenn ko ke kilifa gogu nako bay Baye Thierno ma sa téré buma ma mu ah doom bu ko luñu bëd de xolal rek yam ci bam yag mu wala lu la ci réer nga dem aras laaj ko ko ke dom mënu saafal safal nako man bay Thierno ndax jotina naa arasa mu ne monta sa bayu mu fa yobbu Baye Thierno Sall te bokkoon ca gone ya ah nga xam ne am na ci ñooñ sax man naa am bi seex Cheikh Rafal dem wàccukuñ ci daara ji moom def na ko fii nettali nañ ko léegi te keroog ñu bëri xam nañ ne tawut at moom a gébb amul amuñu amuñu nawet te Cheikh Ibra ko yar kon Cheikh Ibra ci bokkul déedéet bokku ci xoolal sëñ sëñ Cheikh Mbay yaaram moo ma ne maag sëñ Talla Moodu Mbend ak sëñ Cheikh Fall Baye góor ñoo ànd di wër réew mi ba guddi ñu fanaan si Touba Fall Touba Fall bii Cheikh na ma waxtu wañ fay ñëw nag guddi na moo tax nëgë ni sii tàkkusaan la ma ko wax de mu ne ma waxtu wii doom nga ñëw fii laa ànd ak sama nijaay laa ànd ak sëñ Talla Moodu Mbend ñu dem ñu ji sama nijaay Cheikh Moodu Fatma ñee bi ñu ko joxee loxo mun ne ma seex kañ ngeen fi ñëw ñu ne ko biig waaye dañ ne woon bu kër gi séddee ñëw nuyu si la mu naa ah, def ngeen lu baax daan naa ñun dañu ngeeg seen alal ku ñu nangoo jege ci yéen ñu jox ko ko ku ñu nanguute jege ñu yóbbu ko rek daan na mag nag day def na boo ko gisee mu dof nemmikul ba xam la tax mu dof su jaree dof nga dof ni moom su ko jarul daw ko daan na ñun de li ñu tax a dof ci seen maam Cheikh Rafal moo na ko waxoon nu dégg woon na ko nu gis daana man mii day Cheikh Moudou ma mas naa di ko bës di ko bës ci njëriñ mu ne nit ki saab loxo na ma kii kan la ci fere yi ma ko mën a Cheikh Moudou Fatma mu ne waxaa doom yaa ngi bës yellu yàgg jamono yel yi ngay bëss de ba sama borom tene suuf ba tay kum fi mësa indi nga mom jamono yel yi an na yowone wane la ba ñepp xam la doom mu delluwaat suñu borom daa ma señ bamba kat doom dañoo andat waye andon nan mëna tek mëna ma cheikh ndax xam nga señ bamba lu ko indi fi fi yeen cheikh mudou faat ma ne mëna ko faal lool nak mu ma sañoon xam ko cheikh rafal dama da bëgg fam teud fa mak ak fi mu teud fi Tuubaa fokk fay fekk saara bëllëgi mu dimbali la waye ma amaat benen gis-gis kuy maam señ ali Fall mbor kuy maam sëñ Modou Fall Mbenda waxtu wi de guddi guddi la sa maam ñëw fi Cheikh Ibra Fall ci njaareem di ko indil addiya Baye Assane Diop moom Cheikh Diop Atoumane moo ma ne ma Massamba Diop kokke ko ko wax man nag lu ma la wax diw nee na laa lay wax bi sëñ Aliou guddee sëñ Modou Fall Mbenda sa maam ta ah xam naa boo demee day Modou Mbenda yóbbu Aliou Fall naa man de te ma ah, eh, man de bu ma këppee oto bi naa ñàkk oto waaye naa ñàkk ñaari doom ah dégg naa ko jóg sori ndekete kon sëñ Aliou Fall Mboor doomi Cheikh Rafal ak sëñ Modou Fall Benda waaw ah, te Cheikh Ibrahima ak sëñ Bamba duñ kenn kenn du ñoom koñ taxawoon na sama doom lañ loolu mat naa bàyyi xel de dégg naa ko dégg sori keroog ba sëñ Saliou ba sëñ mu saa nee de sëñ Saliou wax ma ne noo bokk bàyyi ndax la sëñ Saliou ne Saliou maa ko jur gis dégg naa ko dégg gu sori Cheikh Ibra kenn du moom mun naa ah, wax kon su ma ñàkkee oto danaa ñàkk ñaari doom waaye ndekete boole gi yàgg na sëñ Aliou Fall mboobeen firnde la sëñ Moodu Mbendaay bàyyam sëñ Bada liñ bëgg a wax lépp du xàcc jotaay bi waaye lu waaye mën a wax daal mooy sama moom moo dàq defar ci àddina man gëm naa loolu lu tax ma gëm ko nag mooy damaa xamoon ñetti laxasaay yu ma mag ñi wax na ma ay jigéen lañ ta toppoon nañ Cheikh ibrahim te gànjol lañ jébbaloo kenn ki xam mooy kan mooy Penda ñay Diop waaw Cheikh ibrahim du nit de ki ci des mooy Fatou Gueye Magnick ka ci topp muy mam dëgg jib na xolal lu toll ne mbana ñu taaj ko ci biir kër Cheikh Rafal rosi ndawale ba seppi des ca Cheikh tànnul góor de dana gees na ana Fatou Gueye Magnick ñu naan seppi dee ci def seppi cunguwaar guñ seppi amuñu mu ne mën ne Fatou Gueye Mbagnick anam wóor leen ma ko mu ne bëri ca soxna yi na ko maa ngi nii Cheikh Rafal na ko jëlal sa loxo bi ngay ko ci mën a sepp ndaw loolu ak fii loolu la ko wootee ñu bàyyi seen yitte yépp ñëw ngir jëmmi sëñ Touba ngir jëmmi maam Cheikh la ma bëgg nga ñaanalal ma leen suñ borom yokku leen te kàttanal leen te wéral leen ba ku ci am daamar suñ borom ful ko ku ko ci amutit bu déwénee booy ñëw fii yore sa daamari bopp na ko bëggee nga defe ko ci barkeb Cheikh Ibra ndax bari na ci ñoo xam ne ñu ngi fi yendu ci suba ba tey te yitte yi bari na xat-xat yi bari na waaye bàyyi nañ seen lépp ñëw fi ngir yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra ak suñ jëmm ju xeebu ji lii ñu fi def yépp ni ci bis bi du dara loo xamante ni bii luñ dajale la lépp taalibe yi rek ñoo ko joxe ñoo ko fi def ma bëgg taalibe yi nga xam ni sa maam moo ko booleeg ñun ndax man may man bada day wax dëgg yàlla bu dee yàlla dëgg rek la bëgg wax dëgg yàlla jëfuma lu jar ak ginaar topp ma ak ginaar jëfuma lu jar mu topp ma ku ma topp Cheikh Ibra rek a tax mu topp ma sant naa ko nag bu wér sant yàlla bu wér a wér a wér ci boole gi ma boole ci njabootuk sëñ Touba ma dib taalibeem waaye boole gi ma boole ci njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi ñi may woowee buñ tuddee sama tur teg ci santu maam Cheikh Ibrahima Fall as gor su set wicc day ñëw toog fi sama kanam boo yeexee moo may gën a ragal yàlla ni ma jox naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira loo ma digal ma def loo ma tere ma ba bu ma ko seetee lam yore mu jox ma ko wëlbatiku bënni bëtam di jooy bu ma nee ko lan la mu ne ma li ma lay yéene kana ko def sëriñ tubaa rek donc Mbàkke nag amuñu lu dul yéen damay wax naan ci man de damaa gorewut waaye bu ma gore woon sëñ Tuubaa de bu fi wàccoonub xaj sax war naa koo jàpp ngir jëmmi sëriñ tubaa defal na ma loo xamante ni bii la ko dale ca suñu maam aadama alayhi salaam ba fii ñu toll mu suñoo gis nit ku ko defal nit ku dul sëriñ tubaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy baax baax baax saaba yi li ñuy tedd tedd tedd ak li ñuy màgg màgg benn saaba bu mu naar sa toog fi wetam ni ko jox naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira amul sëriñ tubaa rek ko ko def kon ñun suñu dund gépp buñ ko doon sant sëñ Tuubaa duñ ko jot kon sa na ngeen seede na ni sant nañ sëñ Tuubaa bu wér a wér na ngeen seede na ni sant nañ maam Cheikh Ibrahima Fall bu wér a wér na ngeen seede ni man bada gëmma ku du sëriñ Tuubaa ñun ñëpp kenn ku ay jëfam kenn koo xam ne say jëf doyloo nga ci lu toll DDV buñ la dugalee ci pax amut suñu yaakaar yépp mi ngi yem ci sëriñ tubaa kenn koo yaakaar koo xam ne ay jëfam doyloo na ko lu toll ni DDV amut kuñ ci dugal ci pax sa bëgg sëriñ tubaa ak lañ koy masa defal rek moom nga yaakaar waaye du leneen kon nag yàlla nañu sëñ bi gàttanu yàlla nañu sëñ bi defal jàmmi kaw suuf waaye yàlla nañu ya sëñ bi defal jàmmi biir suuf yàlla nañu sëñ bi defal jàmmi àdduna waaye yàlla nañu sëñ bi defal jàmmi àllaaxira waa dëkk bi sant nañ leen bu baax waa Gébbu gërëm leen ci seen taxawaayu rafet taxawaayu rafet na loolu wax dëgg yàlla lépp lu ma nekk sëñ xaadim ne la biir ni loola ci lañ nekk wallaay laxasim bu ma bëggee dara toog ci penc mi dama koy a wax ndax bu ma ko waxee dañuy dangay gis ñu jóg sax dugg ci seen biir kër yi kenn ku nekk jël loola daal di wiiri wala mu jox ko gone damay toog ba mu yàgg rek gone ni ma Ah, la nga dey ma ni ma sama bay joxon na man joxon na ma nangam ma nga ci biir wala sama yaay joxon na ma nangam ma nga ci biir liggéey bu may woote fii kenn du leen ci man ñoo ci njëkk boole ci seen alal ak seen lépp muy góor ñi di jigéen ñi sant nañ leen bu baax ci seen taxawaay ñu ngi leen di ñaanal bu baax Cheikh Ibra dimbali leen mboolem ku fi teew ñoo lim waaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lii ñu def nag lu war la ndax maam Cheikh Ibra def bu xëyee suba mboolem lu fa daje ci addiya bu xëyee suba bu ngoon jotee mu joxe ko ne dañ ma ko joxal sëñ Touba wala ki fi ne ki fi wala sëñ Modou Moustapha Mbacke bu guddi jotee lépp lu fi fanaan bu xëyee suba bala ñoo néeg danaan nañ ko jox sëñ Touba nañ ma ko yóbbul ci sëñ Touba wala sëñ Modou safaa Mbacke bi mu fi nekkee nga xam ne Cheikh rek bi muy nelaw juróom-ñaar fukki dërëm lañ donn ci moom ndax dafa fekk ñu yóbbu addiya ja am kenn ku fa jébbalu ak ñaar ñu fa joxe addiya mooy juróom-ñaar fukki dërëm yooyu loolu lañ doon ci maam Cheikh Ibra sëñ Ali Fall Mbawar sëñ Cheikh mii nee na keroog bi mu nekkee ci tawat ji nee na ajuma ji ñu bujj a togg nee na maa ñëw ni ko ajuma ji jot na nee na daraa ji daraay njëmput ji mu wékkoon nee na la ma joxañ nee na ma làmb poos bi fekk ci benn junni nee na bi ma ci fekkee benn junni ma jël mille francs yi jënd ci aw nag nee na nag woowu booy xool fi mu ne nii boo ko doon jënd ay 300000 400000 nga koy jënd nee na deux cent deux mille francs yi nee na ci la jënd ceeb jënd ci diw jënd ci li ci des lépp nga xam ne boobu fi dara waaye xoolal njaboot gi luñ bëgg a def ñu ngi koy def boo fi jógee yàlla moo lay wuutu kon ñun lii ñu jox sëñ bi yàlla moo ñuy wuutu ci suñu biir poos yi lépp lu waaye di bañ bëgg a am nag te ni du ko joxe na la biir ni doo ko am sëñ Abdoulaye Mbacke mu baax ma dafa waxoon ni képp koo xam ni da nga ni du def lii ngir yàlla nee fa nga taxaw boo wëroon àdduna ba mu daj nga ñëwaat fa taxaw faat doo gis ku ko ku la ko nangoo defal te yàlla tax daan doo gis ku la ko nangoo defal te yàlla tax kon nag nañu xoolaat suñ bopp gën a góor góorgóorlu gën a doon ay taalibe te xam ni mboolem luñ fi maas ñu fi dajale dañuy dem rek bàyyi ko fi luñ fi dajale lépp dañuy dem bàyyi ko fi nañ góorgóorlu ci liggéeyal sëñ bi bu baax te xam ne moo ñuy jariñ àdduna ji ñu ne moo ñuy jariñ àllaaxari jee ñu jëm sant bu baax groupe whatsapp it mbolom way Gébbu Fall ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal ci seen taxaway ci njital seigne Cheikh Diop yaakaar naa bu ma waxee seigne Cheikh Diop rek wax naa ñi ci des ñëpp ndax mooy président bi kon bëggit mbooloo mi yëpp na ñi nga xamante ni bii ñoo bokk ci groupe boobu ñu gën cee góorgóorlu bu weer dee ñu teg ndax jàpp naa ni lii nii kenn ku ci nekk war ngaa xam ni sa alal jëndewuñ ko suukar toog ci penc mi di ko wala ñu koy jënde ab gasoil def ko ci suñu oto di taxawaalu déedéet kenn ku nekk xam na ni li ñuy def ci groupe bi ñu ngi koy dugalaat ci fi mu war a dem kon nañ ci gën a góorlu bu baax a baax di sant itam mbooleem koo xam ne jàpp na ci mbooleem ku ci mas a def ab dërëmam yàlla na ko suñ borom barkeel suñ borom boole ñu defal tawféex suñ xaadim nag mbooloo maa ngi nii liñ bëgg daal mooy fajug aajo àdduna ak àllaaxira bi ñu yaakaar sa maam yëpp bëgg aajo faju ci àdduna ak àllaaxira tax ñu yaakaar ko asalaamaaleykum bokki taalibe yi waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ xaadimul Moustapha moom Cheikh Abdou Lahad moo leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm tey tàmbalee ci nuyoo bi sëñ Cheikh Fall Mbawor ndax ci moom lay tàmbale cant gi nee na cant gi sax day jiitu sëñ Cheikh Fall Mbaor nee na mi ngi koy tàmbale ci sëñ alliw ndax Moustapha Sylla mi gënoon a jege sëriñ Abdoul Ahad nettali na sëñ Xaadim te loolu noonu ci suñ kanam la ni sëriñ Abdoul Ahad mës sa jóg mukk te di génn dem fenn te jaarul kër sëñ Aliou Fall daana fa dikk ba mu fa tax nanga ñaari fan wala ñetti fan sëñ Aliou Fall teraanga junne addiyee junne yëkkati na ko jox ko sëriñ Abdou Lahad ba am na benn at moo xam ne nii xar mam doon bëgg a tabaskee dem ba di ko bëgg a rendi da koo jël jox joxe ko jox ko sëñ Cheikh Fall Mbaor ne ko demal yottal ma ko sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou baatum sëriñ Tuubaa sëriñ laa di yor paaka ni mu ni Cheikh Fall gaawusil ba ma ba ma tabaski kon xam na ni xar mi mu war a tabaskee sëñ Aliou Fall a koo jox loolu kon gisum mag ñi def dafa neex sëñ Aliou Fall xam na ni moo war a jox sëñ Abdoulaye mu tabaski waaye sëñ Abdoulaye xam na ni sëñ Aliou Fall ko war a joxum tabaski kon nag loolu ca démb la nee na mi ngi sant nag Ah, sëñ bare bu baax a baax a baax a baax nee na bare day waxu ko ni ko dama ko dama laa bëgg walla am fenn fa mu ko teg fa mu ko wax fa mu ko junj da koo jëf rek mu gis ko nee na bare li li mu séq ak sëriñ sëñ xaadim nee na bare da koo jëf sëñ xaadim xam ko ba tax na fu bare nekk man na ko faa fekk ngir jëmmi sëñ Tuubaa ak Seex yoon wi de kenn ku ci ne xam ne boo ko fi jaar da xam ne yoon yoon wu doy doy xaw a doy waar la ndax suuf si bari na waaye lépp ne ba nu jaataa jóge Tuubaa la ne bari jaral nag ko nee na mi ngi leen di sant yéen ñëpp mboolem lu ngeen fi da jëf Sëriñ Tuubaa ngeen ko jëfal loolu nag jëfi day jëfi Cheikh Ibrahima nee na bu seen jëf yëpp jëfi Cheikh Ibrahima la jëfi Cheikh Ibrahima ci sëñ Tuubaa nee na doon tala nag moom matul ab sëñ Tuubaa am sëñ Tuubaa daa bëgg doon ab bi ni ñëpp nee na xam na jëf ji sëñ Tuubaa ngeen ko jëfal jëf ji ngeen jëfal sëñ Tuubaa nag ci daraje Cheikh Ibrahima yàlla nag mel ni bu ko Cheikh Ibrahima yëkkati woon ci loxoom jox ko sëñ Tuubaa nee na kenn ko fi teew ku ne mi ngi lay ñaanal sag bëgg na ko bëggee yàlla mën na nu ko kenn ku ci ne la nga bëgg def ko sam xel te rafet njot te rafet te xam ne suñu borom mën na lu ko yàlla na la ko defal barke borom Tuubaa allahuma amin allahuma amin yal nañu yàlla yëpp fajo barke sëñ Bamba